ngi noonu euh, ñëw nañu ci euh, euh, beneen mbir muy société ak Maymuna mi ñu doon xaar loolu xale yi naan gan gan gi doon xaar yegsi na <laughs> Maymuna ñu ngi leen nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay soxna Fadi. <laughs> Mm-hmm. yéen ñi ma bokkal plateau bi yëpp ak. Mm-hmm. mbooleem téléspectateur bu ñuy seetaan. Mhm. may yaa ngi ci safar gi de ah. <laughs> waaw waaw safar bi dugg na. <laughs> safar oblige may xëy nga servir ñu ay café on te remercie tey moom yaa ñu resal suñu petit déjeuner. café Touba bu am solo nga ñu indil muy wan rek mbégte safar ni ñu koy waxee ñun murit euh, may euh, tey nag lu jëm ci wàllum société nga waxtaanee euh, divorce yi muy sëy yu tas yi lim bi bari na de ah. Mhm. ni nga ko waxee faat yi li mu yu tas yi bari na. Mhm. lu ci bari dañ naan jigéen ki ku góor ki la. taxoon nag euh, ñu def gëstu bu yaa xool mhm. ana lan moo xew ci biir mhm. lan mooy tax ba ay way jëncante ñuy dem ba ay ati mariage mhm. ñu jékki-jékki rek mu mel ni dara mustoon a am diggante yi ñagas loolu lépp ñu dem nag Euh, jox kàddu gi ay victimes yoo xam ne dund nañ ko. Mhm. divorce ak euh, sunu societé maanaam sëy bu tas ban gët la la askan bi di xoolee lan moo ko waral may euh, Maimouna dem na seeti ñoo xam ne dund nañ lu ni mel te peut-être tey génn nañ ci wala génn nañ ci tontu li léegi léegi lay doon ak Maimouna Ndiaye ak Diafara Ba. bi ñu koy mayee mu dem sëyi amagul woon ñaar fukki at yu mat mu def ñaar fukki at ak yu teg ci sëy ba. tey jii boroom këram xëy mel ni ku ko xamatul. bi mu takkee deuxième femme la commencé indi problème waaw si la commencé indi problème bi femme bi sëysee daal un mois la fa def ak man problème yi commencé commencé di ma si biir kër gi façon bu nekk abandonné ma si kër gi joxatuma ay ju dépasse parce que huit mois yoo xam ne si kër gi man ak samay doom sama famille ñoo ma yor ñoo ma yónnee dund ñoo ma yónnee lépp. ma di ko dund si kër gi ba mu neex ko mu xëy un jour ni ma may naa sa baat. muy fase bu ko jëlee kaw. beneen moroomam itam buy dund daanaka jafe-jafe yu ni mel. début bi daan na am problème tuuti tuuti ñu résoudre ko mais ces deux dernière années yi nag moom bi mu demee ba takk problème bi nag gën a empiré tout temps. problème problème problème di ma persécuter pour ma abandon ma génn kër gi daal dem. ñaari way dencante yuy dund lu neex ba xëy bés yaakaar tas. problème bi tamit si jabar ji la parce que moom moo ko ne mënatul mënut dëkk ak man génn ma génn moom moo sant yooyu yëpp moom moo ko digal parce que dafa dem ba lu mu ko wax rek moom lay def te avant may génn kër ga sax boobu di fa sooguñu sax dafa nangu caabi waañ yaag yëpp teg ko si loxoom mooy ibbi mooy tëj mooy def lu ko neex. mu génne ma si lépp te lépp moo ko digal dama dem ba ma yónnee ko assistante parce que dama doon toog si néeg bi su dara bur bi yëngoo damay damay mel ni ko tiit su ma tëddee damay tëdd ba bës sa te ma nelaw bu fekkee ki ñu njëkk a taseel dafa dem kii moom xalaatu ko si toutefois mu dóor la wala mu def dara nga génn daw bu boobaa man je serai perdante parce que bu génnee dem woote huissier wala dara ñu def constat ne la femme là elle a fait abandon au domicile ce sera pertement moo tax damay toog malgré metti na mais damay toog xool nuñ koy réglante topp ci yoon ba lim may poussé duma ko ci fekk si. muy metti ngay muñ ana kañ lay jeex soxna si ànd ak ngëm. dama teg lépp teg si loxo yàlla ndax comme moom moo leen jur te duma ko xëccoo ak ñoom te xañ na bu dul bu fekkee ñàkk dal bi si côté jabar ji la mais bu dee seen papa sama xel dal na si ndax moom bëgg na ay doom. bëggoon na ko ba bu may nekk ak moom bëggoon na njabootam te dañuy jàng te bu dee wàllu jàng bi xaj ne moom moomu si tane. kii am na juróomi bant ki ci des juróom benn tey jii ñu ngi xoslu ku ci nekk di amal sa bopp bañ ku la yàpp tey jii li leen dal bëgguñu mu dal seen benn moroomu soxna. muy noonu euh, euh, euh, tas ci société bi quand même di sujet yoo xam ne parfois dafay xaw a sensible may mun a dem seeti ñaar ñoo xam ne dund nañ lu ni mel muy lu jara def taxaw seetlu Chérif. lu jara def taxaw seetlu moo tax laaj bu njëkk bi mooy comme indi nga fi ñaari cas lan moo leen wutale. Mm-hmm. Chérif comme ni ngeen ko gisee ci élément bi ñaari mm-hmm. cas la. Mm-hmm. kenn kii def na ñaar fukki at mariage ka des ñaar fukki at yi weesu na ko. Euh, mais euh, kenn ki dañ koo poussé ba mu génn maanaam buntu xatal nañ ko mënatul a muñ yoo xam ni dañ ko koy wax muy xeetu ay kàddu yoo xam ne yu ñaaw la. Mhm. ay euh, bëggatuma la ay yeneen yu du demee. Mhm. ba moom boo fi toogee yaa fi téye sa bopp boo boobu yëpp dégg nga ko nee day toog ba guddi sax mu daan tiit. Mhm. mel ni daal am na lu ko dal wala muy guddi gi yëpp du nelaw. loolu yëpp di ay jafe-jafe. mënatu xatoon na ca kër ga mu dem bàyyi fa ay doomam. amoon na. juróomi bant mu bàyyi leen fa mm-hmm. daal di dem mm-hmm. xam nga loolu yëpp eh, ay jafe-jafe la moom kaa am loolu la dafa dem daal di bàyyi préféré daal daal di dem keneen ki nag moom mm-hmm. comme jàng na tuuti nee na moom du dem parce que ñaar fukki at ak lu teg nga nekk ko nit foru ko ci mbedd mi dafa ñëwoon takk ko ñu ñu sëy ci farata yàlla ak sunna Mohamed mu mu ñëw tey jii muy koy bundaxatal wala dara nee na day yomb lool mu daal di dem bàyyi fa juróom benn bant yi nga xam ne am nañ ko Euh, di wuti leneen day topp affaire yi ba nga xam ni moom bu ëllëgee duñ naan ko abandon de domicile nga def wala lu lu mu demee moom daal bëggul faute bi nekk ci côté am dafa bëgg daal doxal looloo waral nag mu dem seeti ñi nga xam ni euh, xam nañ dara ci yoon ñu koy gindi euh, pour pour mu dem daal ñaari cas yooyu la ñu am tey ji indi indi très bien cher na euh, euh, léegi léegi Maymuna euh, cas de divorce souvent bëri na mais d'habitude lan moo koy waral. Mhm. am cas yi bëri na mais liñ ci gën a jàngat biñ ci def ak gëstu bi. Mhm. liñ ci gën a nemmeeku mooy défaut d'entretien. maanaam nga indi nit ki ci kër gi dem ba mu yàgg euh, dundalatoo ko yoroo ko niñ la ko santee maanaam sa wareef sa wareef dafa dafa dëkkoowoo ko waa kay nga koy mel ni ku ko ignoré daal ci kër gi mm. nga dem par exemple takk beneen soxna euh, munoo yamale mm-hmm. euh, léeg-léeg mu gis la léeg-léeg du la gis parce que keneen beneen kaa bi loolu lay dund moom nee na léeg-léeg mu ñëw mais c'est pour la forme rek ñëw turu ñëw naa la mhm. mais bu ñëwee xool xale yi yooyu daal di dem ndax ay doom yu mag lañ am ki ci mhm. gën a nekk mag am na 18 ans xam nga mhm. nekk duñu ay xale mais nag euh, yooyu cause lañ gis ak euh, traitement boo xam ne baaxul euh, nga koy dund ci biir ak parfois tamit ñu ne incompatibilité incompatibilité d'humeur parfois day am nit ki daal di yëkkati ay kàddu yoo xam ne ñagas na ñàkk communication yi léeg-léeg dañuy seetlu euh, bokk na ci cause yi. Mm-hmm. Euh, nit ñi dem ba nga xam ne parce nee nañ say contrat la mais boo demee ba ci biir la ca taxoon a dugg projet ba gisatoo ci sa bopp. Mm-hmm. dafay mel ni daal euh, cause yi day gën a yaatu Amina. affaire su amee en général ñi ci gën ko ci gën a loru la plupart du temps mooy jigéen jigéen la parce que da xool da nga koy xool rek ci mbedd mais maa mhm. ngay gis benn góor buy dox ànd ak ay doomam pour pour di di yalwaan pour ku leen dimbali mhm. ku jigéen ki rek ngay gis moo koy def moo tax euh, je pense que lii nii soo ko bëggoon xeex pense que sax ci loolu lañ nekk jamono. Mhm. di scolariser xale yu jigéen yi. ñu dem ba màgg. mënal seen <laughs> bopp indépendant. parce que. loolu rek moom moo leen ci mën a génne déjà mm. da di jox respect mm-hmm. seen biir kër yi mm. ak seen i conjoint bi mm-hmm. tamit tamit conjoint bi tamit su demee ba andi tànk bukki mm-hmm. euh, moom dina mën a yor njabootam calmement ba yenn yi du ko ci mën a fekk drame sociale yu bari loolu bokk na ci li ko mën a éviter loolu mooy émancipation bi ñuy wax boog nga am noo ci taxawee euh, parce que am na loo xam ne boo bu dee xam nga ko di nga xam yoon ba nga war a jaar di nga xam tamit sëy ni contrat la dafa am ku ci nekk la la war. Euh, ba yenn erreur yi peut-être doo ko def. Mm. te tamit sax li Cheikh Tidiane wax c'est tellement important su fekkee da ngaa jàpp ci dara. Euh, am formation Aminata am sa liggéey peut-être euh, moom du mu sax sañ a àgg fenn parce que dina xam ne comme li nga wax xam nga sa ay droit ba mm. pare buñ la bàyyee di nga ma demal sa bopp. Mm. le le plus souvent ñi ngay gis ñuy bàyyi seen xa doom yi kër ga parce que am na ñoo xam ne buñ la. fas yéene nañ ma baal ci kàddu gi dañuy jéggalaale sax xale yi mhm. donc dañ ñaan la sax bu leen nga yóbbu leen bu fekkee amoo foo leen def sax mhm. loolu mooy problème mais bu fekkee da nga yor sa xëy nga yóbbaale sa ay doom mhm. téye leen et tout ça yoo xamante ne fuite fuite de responsabilité la dañuy dem ba commencé am problème mënatuñu euh, ñu fase la fase waale doom yi fase waale doom yi c'est c'est ah, c'est c'est très grave et c'est compliqué voilà ah. euh, mais may sax euh, est-ce que am na procédure spécial euh, en matière de divorce. Mhm. Cheikh Tidiane procédure yi euh, numéro bii di ñëw dinañ gën a yaatal bu ko defee ñu jox kàddu yi juriste yi. ak ñi nga xam ni ñooy topp ci wàllum xel. Mhm. Euh, ñi nga xam dañoo divorcé mu laaj taxaw ak xale yi. Mhm. wante pour ñu junj leen rek. pro procédure yi am am na am na fooy jaar mm-hmm. parce que nag ku ne xam na ni divorce ci ñaari pàcc lay doon am na boo xam ni par consentement mutuel la ñaari wàjjantante tey ñooy dem ba xam ni affaire yi mënatul dem bu ko defee ñu déggoo ci cadre dem ci juge ba mm-hmm. ne ñun kat lii lañ décidé euh, par exemple xale yi ku góor gi moo koy yore parce man sama jàng demeewul noonu comme benn cas bi ñu gis ci élément bi mhm. moom moo ma gën a xam ci xale yi mën nañ am beneen cas boo xam ne tamit kee danaan ko man de damay téye xale yi parce que seen tànta li ma wonoon ci biir kër gi euh, sama xel daal du dal ma bàyyi leen peut-être ak waaw samay doom mhm. seen ëllëg seen njàng ak yooyu am na beneen boo xam ne mooy divorce euh, par contentieux foofu mhm. moom kenn ci way dencan yi mooy xam ku góor ki la wala ku jigéen ki boobu mooy dem sàkku divorce bi bu fekkee dafa sàkku divorce bi aussi euh, dañuy dañuy euh, première premièrement li ñuy def mooy euh, juge bi dina euh, jéem a woo ki nga xam ne moom moo ko sàkku mm-hmm. xool lan moo tax mu bugg koo def foofu ñu xool ndax dinañ mën a diggante bi dinañ ko mën a sauver bu fekkee loolu mënul antu nag ci lañ leen di doon dajale ñoom mm-hmm. ñaar ku ci nekk toog ñu xoolaat première fois mm-hmm. bu mënul dem nag ci la ñuy daal di ñëw ci procédure yi. Mhm. Euh, proprement dit. c'est c'est vrai que ñu bëri dañuy ragal dem tribunal su divorce su amee euh, du ñu xam ban damay déglu sax parfois. Mhm. Euh, nit yi di wax naan par exemple awma woon këyit. jàkka ja lañ ko takkee donc pour man tribunal amu ci yoon alors que nekk xam na ni faaw nga am kayit la preuve gis nañ fi plus souvent euh, may naa la sa sa sa baat ci kàddu nga dem sëyaat shérif mu ñëw topp la bigamie parce que xamoo woon ignorance te donc may deuxième pàcc bi am na ku ma dégg mu wax lu am solo mm-hmm. ma lay wane aussi xam sa wareef dafa baax maanaam au moins nga am ay notion ci wàllu droit parce que nee na mm-hmm. même pression bi mu koy teg harcèlement pousser. pour mu génn vers vers vers loolu mais mais euh, boobu aussi euh, je pense que des day am risque. Mhm. parce que am na koo xam ne da lay teg pression di la harceler. soo deful li mu bëgg finalement violence lay mujjee. Mhm. ay dóor. ba gaañ la ci yooyu yëpp day faral di di di am. c'est compliqué ndax am nañ ci ay témoignages yoo xam ne peut-être gis naa ñoo xam ni gaañ nañ leen am nañ ci màndarga mais. malheureusement xam nga du ñëpp ñooy bëgg ñu filmer loolu parce que dañ naan diw mhm. kii la moom moo génn télé peut-être diw la dañuy xam kan la mais gis naa ci ñoo xam peut-être seen jëkk seen borom kër defal na leen mandarga boo xam ni peut euh, pour loolu rek ngay wax pousser leen pour ñu génn mhm. alors que bu dee xam nga sa droit di nga xam yoon ba ngay dem mhm. certificat de mariage bi tamit lu am solo la parce que mooy nekk ëllëg sa arme boo xam ni mën euh, nga koo topp mais bu fekkee nag dafa am leneen looy xool ak nëpp nëppal bi eh euh, dafay indi daal problème du nekk lu gën baaxul baaxul je pense moo tax liggéey la bu am solo boo xamante ne même si association femmes yi ñu ngi koy def ngir euh, xeex les violences faites aux femmes mais je mm. pense que war nañ cee gën a góorgóorlu parce que dafa des ba léegi li ko waral mooy comme ni nga ko waxee des fois nëbbalante beeg sutut la beeg bu des fois masla bi parce mm, doom yi seet ci doom yi jëkkër waaw cas cas tamit da nga koy gis mm-hmm. euh, deuxième cas bi lu mu lu mu ma wax euh, ne ma xale yi ñoo tax wax loolu daf ma ko wax ne ma xale yi Euh, nee nañ ma daal bu ma dem tribunal mhm. léegi damay xool ban voie laay kii nga xam ni mhm. Mhm. Euh, problème bi daal du du du duñ ne ëllëg man ah. maa yóbboon seen bàpp tribunal ak yu demee noonu voilà ku sañoon ku sañoon fa ngay fa ngay gën a xuus euh, numéro bii di ñëw mit al alba bii di ñëw ñu dem nag comme chérif ni mu ko junjee dem ci juriste yi nga xam ne ñoom ñoo fi teewal soxna yi ñi nga xam ne ñoo leen di gunge ci boutique de droit yi ñi nga xam ne tamit ay sociologue la psychologue yi nga xam ni aussi seen xam-xam dafa màcc ci loolu dañoo def ay gëstu yu yaa am ay chiffres yoo xam ni mhm. ci wàllum divorce lañ ko am ñoom ñooy taxaw tamit xale yi ba duñ ci loolu ëllëg mhm. euh, deuxième partie bi ci loolu lañ ko na def c'est c'est important foofu sax laa doon euh, euh, laajee mais daaneel nga fa may mun a pour ñu def itam taxaw seetlu bu am solo ni ko waxee parce que am na ay ponk yoo xam ne xaw na lëndëm ci bopp ñenn ñi du ci mel ni sama genre gi mais bu leeralee mu baax comme ni may wax rek ku sañoon fa nga am sa ay doom foofu ngay sax mais nag lu mënta ñàkk faaw Surtout qu'il y a une vie après le divorce. Le divorce, aussi. ah oui, ah, ah oui. Parce que dans la vie, vie voilà. des relations toxiques, yo, xamné. <laughs> C'est vrai. Euh, mais, mais séparation quand euh, même ñak la. ñak lool lay wax lu mënta ñak faaw am. Même tribunal bu fa démé tribunal waxtaan d'instance moom la ñu wax jubóo gi départementaux yi mhm. juge doon jëkk def mooy bàyyi leen ngeen waxtaan jubóole bu nawee moom mënta ñàkk hmm. ci la ñuy dem ci séparation muy loo xamante ni hmm. quand même lu douloureux la mhm. séparation ci ay way dencante c'est ça de surtout bu jigéen moom wax dëgg yàlla am hmm. ku ko xool war ngaa xalaat leneen ci moom sa mm. yaay la sa leneen la lu wallaay ndeysaan di ko bunt xataal wallaay ndeysaan ñu koy def bu dee dañoo feebar nañ leen faj wallaay je pense que moo moo war ci ñoom mm-hmm. moom du yoon ñu koy teg dafa doy waar mais xam naa ne xam nga gars neew nañ dafa am association des femmes battues noonu la amee association des maris battus gëstu may gëstul ba xam ndax am na ay góor mais nag xam naa ni ce sera de par rapport aux femmes jigéen ñi moom instant yi nii sonn nañ xari i Chérif boo gisee parce que xam nañ ni dañoo kii ah, comme Chérif ni mu leen defaan reen ni <laughs> un cas sur mille lay doon ah, <laughs> waaw un cas sur ah, wala wala un cas sur sur cent mille mais ci mbedd mi rarement ngay dajee góor bu bu njabootam di wut ndimbal walaay dëgg la dem fàq fàq bàyyi fa njaboot gi ak soxna yi ñu naan la bàyyi fi dépense duñ xam sax fi góor ku góor ki dem en tout cas la ñuy def dañuy dégg ñuy ñi <laughs> ah. dañuy bañ a wax waaw mais mais nag toute toute façon complémentarité la ah diggante góor ak jigéen dafa war di di neex nekkuñu fi pour def procès kenn mais euh, société moo ko laaj waxtaanee loo xam ne askan bi dañ koy dund may mun na ñu lay jaajëfal bu baax ci li nga indi amatina solo borom safar gi di la remercier encore une fois ci café Touba bi <laughs> euh, noo <laughs> <laughs> moo tax mu def grand boubam bu baax indil ñu Café Touba macha allah ah, euh, ñu koy sant bu baax a baax ci safar geek ni ngi ñu ci dugalee macha allah léegi-léegi ñu dem ci li ci yenn kaay yi ànd ci ak Lamine Samba. Ah,